salaamaaleykum mbokku taalib yi mbokku jullit yi maanaam réaction bi di leen lu dul sof ko rek ci waxtaan wi xam ne maa Ibra wax na ko léegi maa Ibra Fall nag ku ko xam xam ko ci yoon wi xam ko ci waxtaanu yoon wi euh, kon buñ ne naa ca am luñ sos man damay wëlbatu ko rek di ko wax mbokk taalib yi mbokku taalib yi Baye Fall yi Baye Fall yi dama leen wax ne feebar feebar bu dul wér nala la feebar bu dul rey. feebar bu dul wér nar a rey te nun Baay Faal gi sunu feebar moom balaam balaa kii rek nu dem si taj ak maam Cheikh Ibra Fall yow kan Fall ña yaram ñaari ñu bu baax baax feebar bu dul wér daal nar a rey Fall. liñ ci yëg moo di ne euh, dafa mel ne euh, euh, pour nun at bu weesu at bu weesu bi ci topp dañuy yeesaat ndax leer na ma leer leer yàlla ne wóor na Serigne Touba barkab maam Cheikh Ibra Fall melu ma woon ni daaw ren dama mel ni bu déwénee laay dàq ni nun at bu nekk rek. ak yeexlu ci la ñu ñëw liggéeyal maam Cheikh Rafal ci ndogom yi xam ne Serigne Touba da ko ci joxoon ndigal kon wax dëgg yàlla euh, euh, ñi ngi woo ñëpp waxandoo sax noonu Baye Fall waaye ñi ngi kenn keneen koo xam ne xamul ndax olof Ndiaye dafa wax ne la mu saf ka ka macc ko xam ñun ñii li tax ñuy def ne dañ koo macc waaye kii xam ne mu ngi ñuy xool te def ko naa lii lan la ñu war mos loolu rek lañ lañ leen di woowee jërëjëf <laughs>